bokki réew mi ak àdduna bépp maa ngi dikkaat fii ci dëkk bu tedd bii ci kàddu bii may wax nga xam ne kàddu eh, Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha kàddu bi li ko ubbi mooy waxtasimo bi hablillahi jamian wala tafaraxo bu doon lu ñuy tëj innamal muminuuna ixwa fa asliho bayna axawaykum loolu moo jógloo sëñ Muntaxa te moo jógloo woon ay waajuram te looloo jógle woon sëñ Touba eh, yonent bi sallallahu alayhi wa te loolu la taxoon yàlla bindul te sunu jëwriñ di sëriñ Touba wax ne fala tuhaadoo man raaytum faaho yoxriju la ilaha illallah kon responsabilité bu réy boobu nag moo tax lii may yëkkati kàddu du wax di waxaat ndax ca mujjug waxi démb ja euh, euh, Cheikh Basir waxoon na ni bu ko sëriñ bi joxaatee ndigal dana wax kon nag euh, lii indi mbir mi mooy démb dégg ngeen Cheikh Mouhamadul Basir ci ndigalal xalif général des mourides ci teewaayu sëñ Moussa sëñ Moustapha Basir mu yëkkati woon ay kàddu ndax yi xew ci jamono ji ak coow yi duma dugg ci lam waxoon ak lam waxoon murit yi ndax moo yore woon kàddu murit te moom lañ wax la woon te lam doon wax sëriñ bi moo ko wax la bi mu ko waxee nag mu mel ni dafa yëngal dara ci réew mi walla kàddu yu sëriñ bi la taxoon mu jóg ñu juutal ko waaye li taxoon kàddu yi sëriñ bi jóg rekk moo tax may wax mooy loolu ma jiital e, wane ne moom day lii yàlla teg ci loxoom muy toog teg ci nekk ci jataayu yoonu murit ba wu cee def dara dara dara loo xam ne dana moy ndigalal yàlla ak jottali yonent bi sallallahu alayhi ak ndénkaaneel sëñ Tuubaa li nga xam ne moom la looloo taxoon bi coow li bare mu yëkkati kàddu wane rek ne euh, na ñëpp dal te defaraat jikko yi te jéggilante teel rek tax te wane ne lii xewoon bërki dem ñu xam ne jubluwul moom génne kenn ci yoon wi walla muy dàq kenn ci yoon wi wala mu naa kii jullit la wala doonutub jullit wala morit la ndax morit la ko murit yi moom te li li Cheikh Basir waxoon mooy am morit bala ngaa doonu morit da ngay doonu jullit moom nee na ci boppam la ko njëkke te loolu leer naññ la kon nag ku ñëw doonu morit boppam la kon jubluwu ci Idriss Seck wala mu jublu ci kaneen sëriñ bi politigul politigluwul mi ngi ci ndénkaanal sëñ Touba li mu ko dégg rekk murid yi kon nañu ko dégge noonu te jàpp ne sëriñ bi foofu la leen nekkuloo te du du jël mukk lenn loo xam ne nii du njàngaleem sëñ Touba digal leen ko wala mu def leen bu fekkee dañ leen a tooñ jéggale leen bu ngeen tooñee jéggalu leen ku tooñ jéggalu nag jéggal rekk a ca war sëñ bi daal foofu la ne mu ngi nuyu mboolem kilifa yi diine yi nag ak kilifa yi àdduna yi ak fu fi waay ma ne ni ci réew mi bitim réew di leen wax ne jàmm jooju daal moo ne ci moom wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu